janvier 2015 po moomu ci boppam dina egg maanaam promotion bu mag boobu dina egg ca ca pandaw ga su ko defee nag kenn ku nekk mën cee jëriñu ñu fàttali nag euh, euh, Facebook Kouthia officiel mu ngi tudd Kouthia show officiel sur le w w w point facebook point com flash Kouthia show officiel su ko defee nag ngeen mën a am li nga xam ne nag moom mooy animation bi ci nekk ci biir ak lépp mu nekk dëgg beneen boo leen gis nag xamal ne amul kon mbokk yi nag ñu ciy profité ziar sëñ Cheikh Ami Ridial Seck ak mboolem mbàkke mbàkke boo xam ne nag xaritu sëñ Cheikh eh, Ami Ridial Seck di sama xarit yal ko yàlla defal jàmm saxal ko ci li nga xam ne nag moom la eh, saxloo di diine ak teg taalibe ci yoon ñu ngi koy ziar wër moom sëñ Cheikh Ami Ridial Seck di am mbégte contentement tamit bu mag ci eh, ki nga xam ne moom mooy mbërgu Demba mbërgu Demba di chéri Demba Euh, euh, Demba Dam à Louga ca Algérie ñu koy nuyu bu baax euh, mbërgu Demba di chéri Demba Daan foofu ca Louga Algérie di nuyu tamit Aïcha Wali Samba ak Rama Yade la batante di am ca contentement bu mag ci ki nga xam ne nag moom mooy Mama Kan ak ki nga xam ne mooy soxna Mama Kan ak soxna Serigne Aramine Mbacké de la part de Madiop mbay Peex ak Anita Wat gi Euh, la parisienne depuis Ouest Foire ñu koy nuyu bu baax di am a contentement ci ñooñu nga xam ne ay soppe nañu waaye tamit euh, di nuyu waa dibiteri Malick Gakou marché Sam ñoom Madiame Dieng ñoom Laye Ndiaye ak ñoom Nalla Ndiaye moo Gueye euh, ca Euh, Touba Ndamatu Gueye ñu euh, ak waa kër Serigne Sang Ndiaye yëpp Aminata Kanté euh, maire Sam Notaire ak le grand noble di tubaab ñu koy nuyu bu baax di noble de Guédiawaye di nit ku yàlla baaxal dëkk foofu ca waay doomu ndey Malick Gakou di nag ki nga xam ne mooy càmminu Mimi Touré waaye tamit di xaritu El Hadj Abou Bilal moom tubaab le noble ñu koy ziar di ko sant bu baax ci liggéey bi nga xam ne moo ngi koy def foofu ca Sam Notaire nga xam ne di ci boole Euh, liggéey noppi uteg ñi nga xam ne dañuy topp ci rajo yi di takk rajo rek di mbelli mbelli kon nuyu nañ ko baax moom ki nga xam ne moom mooy euh, suñu xarit boobu di euh, tubaab le noble ni ñuy def na moom mooy seeti Mimi Touré tey ci journal L'Observateur mu ngi nii nee na waa PS Ousmane Tanor Dieng li mu bëgg mënta ne munoo nekk ci mbir mi ba pare bëgg nekk candidat moom ci boppam Mimi Touré jël na responsabilité am nee na faw mu songi ñi nga xam ne nag ñoom ñooy responsable euh, PS yi bokk ci bennoo ñu wax ni ñi fu ñu féete ndax ceeb bi tamit munoo ko togg dem marché dugg ci ba pare ne ceeb bi ci boppam euh, ki ko togg neexul da ngay berwaat loolu il faut ñu leeral ko Mimi Touré nga ñëw dal seen kaw fan lay dalee seen kaw ndax ci kaw peuple bi wala ci kaw PS nañ seeti Mimi. me. Mimi, Mimi, Mimi. merci merci tey nag euh, dama ñëw pour ware ne man Mimi Touré il faut ñu leeral loo xam ne dafa war a leer parce que la président Macky sàll mënul nekk ci président jiite réew mi am ñoo xam ne dañoo àndandoo ak moom pour jàppale ko ñu ànd def bennoo siggil Sénégal ba tey fu mu ne nii ñu ngi ci kaw taxaw pour siggil Sénégal nekk ci plan Sénégal émergent nan la mën a nekkee li may wax na dama bëgg ngeen bàyyi ci xel Ousmane Tanor Dieng dama koy interpeller pour mu rectifier parce que c'est pas trop tard le président Macky Sall nekk na koo xam ne mën nga ànd ak moom mu lay bàyyi xel waaye nii nga xam ne ñoom lañu nar a doxalee ak ñun dafa jekkul sax ci nekkin parce que munoo ànd ak nit ki mu dugg marché di dem marché na day togg ceeb nga ànd ak moom tànn ak moom jën tànn ak moom ceeb tànn moom diwlin bi duggandoo ak moom ci jàll këriñ bi ut xorom ak li koy safal yëpp yéen ñaar yéen a duggandoo yéen a ko tànnandoo yéen a xoolandoo ba pare nga ne ko nag man bokk naa ci ñiy boyal and bi ñiy boyal cin bi bokk naa ci ñiy taal gaz bi bokk naa ci ñiy sebet ceeb bi bokk nga ba ñuy xooli soble bi ba ñuy dëggu nokkos bi def ko ba mu leer ñu war a yàkkal sénégalais yi nag nga ne déedéet man dinaa togg sama togg boo xam ne bu ñu yàkkee lii ëllëg man maay dugg togg ndax togg bii duma ma doy te yow nga bokkoon ci ñu duggoon togg ba bu togg ba naqaree na nga taxawee ne la ne man bokk ma ci woon bu togg ba neexee kay yow da nga war a ànd ak ka toggoon ngeen tollanti dem te ci yoon bii ñu jël ñun yoonu togg gu neex la ndax boo xoolee ne président Macky tout début est difficile actuellement nii ñu ngi ci ay projet yoo xam ne ku xool yoonu Kaolack bi nga xam ne dañuy wax ne président bu ko tàmmali doo ko eggali te ñun ci koom incha allah dinañ ko eggali essence ba wàññeeku na gaz ba wàññeeku na location ba fañ ko jëlee woon ci début année ba wàññi ko dama ne Sénégal ngi émerger ku weddi dugal ci biir plan Sénégal émergent ñoom nag li ñu bëgg nag mooy na ñu taxaw wax lu leer mun ñu ànd ak président Macky Sall ba pare ëlbati ko di bëgg li mu bëgg ndax nit ki booy ànd ak moom ba pare chaise am toog muy président nga ne ko damay ànd ak yow guddeeg bëccëg muy tukki di ànd ak yow nga koy xelal ci ni muy doxalee ci gis-gisam ci leppam ak vision nga xëy xëy na déedéet moom li muy gis laa bëgg gis fi muy teg sama tànk laa bëgg teg sama tànk kon dama ne ànd boobu leerul dañu bëgg nag moom bu fekkee ne ñoom wax dëgg yàlla dañuy nekk candidat nañu teel génn bàyyi ñu jël suñu responsabilité war a ñoom ñu jël seen responsabilité dama xamul nag ñoom campagne bi bu keroogee lu ñuy taxaw wax ndax booy campagne pour gagner da ngay critiquer les points faibles génn les points positifs point faible yooyu nag boo koy génn na nga ci sóoraale bopp te boo ko defee askan bi lay dana danañ xam ne ne que ñii li ñuy politique demul dara dama ne la politique dëgg la cin bi nag bax na neex na xeeñ na moo taxit ma ñëw dama ne dama ne dama ne politique bi lañ ko war a changé ndax suñuy doom ëllëg bu ñu màggee xol nu ñuy politiquee mën cee mën a topp waaye bu fekkee ne nii la ñuy politiquee xale yi bu ñu juddoo yaakaar ne nii la ku ñëw nii ngay doxalee damane doo ànd ak nit ki ca ba muy neex mu dem ba muy neex di neex nga xëy na neex-neex boobu muy neex yow da nga bëgg am sa neex-neexu bopp boo xam ne yow da ko bëgg def lu gën a neex te li mu neex te li mu neexee neex nii da war a ànd ak moom muy neex ba tollantu ko muy neex waaye mu neex nga xëy bëgg na loolu neexoon dafa naqari woon dama ne ëllëg bu waa PS taxawee pour soxla réew mi fan na ñuy taxaw campagne ak lu ñuy wax yan point faible ñu mën a wax point faible fi amee ñu ñoo ko faiblandoo kon dama ne li war gunge ñu jusqu'au bout moo nag ñun la cadence accélérer la politique accélérer wan leen ne ñoom bu ñu mënul dal seen kaw ñun tamit nañ leen génn ci li nga xam ne mooy mouvance parce que duñu ànd ak ñoom ba ci biir ñuy génnal ay mbóot yoo xam ne mbóot yi ñu ñoo ko indandoo ñoo ko jëlandoo ñoo ko saxandoo ñoo ko yarandoo mbóot yi màggandoo ci ñun kon dama ne on accélère on accélère on accélère